asalaamaaleykum xasida gi dana ko gis muy xasida guy soññee nu jàpp ni war nañ cee mën a leeral sunu déggin ngir mu gën a leer ci ñenn ñi nga xam ne waxinu wolof leerul ci ñoom lool. waaw sëriñ Bay dafa wax ni yàlla moo la may dund ak wér may ko jaamu gu wér su fekkee ndeen mënoo ko may jaamu tam nga fay ko borom ndax ku dul mayee it war a fay mooy lim la defal nga sant ko ku lay lebal boo ko dul may lëf te fay ko mu doy labon fayoo ko mayoo mayoo ko lëf di may ku ko mooy yàlla moo la lebal def la nga juddu def la ngay dund may la wér mu ni kon la ci gën nag mooy nga di ko sant di ko jaamu waaye nag di jaamu keneen ak a sant keneen di sant leneen mu ne waay waaye boo boo ko mënta may fay ko fay ko borom ay dal na képp ku am ak jot te jéemu la jot mboolem njariñ lu ko raw tey rëccu mooy gamu mooy waaw ak jot dafa yombut mu ne kon képp koo xam ne am nga jot li nga war a jëkk def mooy seetlu li la raw lépp nga jéem koo dabaatal seetlu li nga mooy lépp nga jéem koo tuub nee na ku amuk jot loolu nga war a jëmee sa jot ku lay kobos ak a woo ba ngay gone yow ba jàpp tey jii nga war koo geesu faale ko ciy mooy yàlla bi mu la defee ab liir wut ñu lay toppatoo di la taxawu ba nga mën a taxaw su boobaa nag lay wuyu yàlla mooy nga daal di jàng nu ñu koy jaamoo te di ko jaamu. mooy kobas googu moo lay kobas ba nga doone gone ba tey mu ngi naa la sa ngi nii la mel ngi sëb sëriñ a ngi nii sëriñ saa ngi nii ñu baax ñaa ngi nii ñu bon ñaa ngi nii moytu leen loolu mooy kobasub yàlla wuyu ko nag mooy nga xam ni ñu bon ñii mu la doon wan da nga leen a war a moytu ñu baax ñii mu la doon wan da nga leen a war a roy yàllaa ngi lay soññ ak yonnan ba ak sa sëriñ ngir bëgg ngay waaju dundal diina juy fegooy yàlla mi ngi lay soññ ndax bis bu nekk dana fenkal ab jant waaye diir bu gàtt nga daal di nekk ci bëccëg diir bu gàtt jant baa di so mu wóor la ne jant booba loo ca deful doo ko ci am kon loolu ab soññi la ndax xam nga ne jant bi day soo gaawal def ci loo xam ne nii bala buy so yóbbaaleel la ko nee na lim ci jublu mooy bëgg ngay waaju dundal diine joxe ne da ngay fegu day fegu ay mooy nga siq ak ñëpp jàmm di leble jàmm di wut jàmm tey dundal diine. te sab serigne joxna la yobbal bu doy soga dem xamal la mo bu wer soñul te soñu ñu wey kon mu ngi melni mourid bi lay waxal ndax borom Touba def na ay téré xam-xam tombu na ay tombu bàyyi won fi mag ñoo xene de leena yar bañ mel nañ wara mel ñuma nekk ci aroy mu ne kon sab serigne joxna na la yobbal kon nak ginnaaw joxna la yobbal ne ma soñul te soñi soñu moy soñi sa bop soñé moy soñi kenen koo gis xamal ko boroomam yalla yaw te taxaw ci diine xollu bañal bul def ko àddina jay nee na ginnaaw xam nga nag yii sëñ bi defan muy li mu jàngale ci tomb li mu jàngale ci mag ñi téere yim bind nee na soo ko xamee nee na na nga gis yow it koo gisee xamaalaat ko borom mooy nit daal fu mu toll wax yàlla la war waxtaane te taxaw ci diine xol mooy taxaw taxaw ci taxawaay bu bul def ko àddina jay àddina nag dana jay boroom xam-xam dana jay boroom am-am dana jay boroom man-man mu ne yooyu yëpp loo ci am bu la ci àddina jay jëme ko ci yàlla rek ku xam lu wér cëng biir ak biti kët la ca gën jëf-jëf ju wér cëng biir ak biti noonu la day nee na ginnaaw xam nga xam bu xam-xam bu wér ni xam ni sëñ bi moom lu mu xam ne lu wér la waaye ginnaaw xam nga lu wér ceng nag nee na jëfal jëf ju wér ceng mooy lim la digal nga di ko defee noonu ci ci biir ak ci biti rek mooy li ngay jëf ñu nit nit ñi di la gis ak la ngay jëf te nit ñi gis ñu la nan lépp wér rek yamaleel ñu gis la ak ñu bañ laa gis te xam nga xel ni dee day ñëw te adduna ji day wéy te laaxira ngay teg bët bu wér ci sa pay nee na bés bu ne nga gis nit ku faatu sa baay faatu mbaa sa maam say maam mu wóoral ne faatu nañu te ñu bari ñoo xam ñu faatu mu wóoral ne kon da ngay da ngay faatu mu ni kon ginnaaw xam nga ne dee moom mi ngi ñëw te àddina ji dafa day jeex day wéy te euh, àllaaxira ca ngay teg bët bu wër ci sa pay la la nga defoon ah mu ni kon dalal di jëf lépp loo sopp ak payam ku ne gis te daal di daw lépp loo bañ ak payam wéy wéy ginnaaw nii nga xam ne noonu la demee ne kon daal di daal lépp loo jàpp ni rek boo ko jëfee euh, bëgg nga ñu fay la ko daal di sàmbali loolu lépp loo xam ne nii bëggoo ñu fay la ko daal di tàmbali daw loola way jot na nit ku wayul bay rax bi jaaw jaawaka wam moo war ni cey li ma dal moo war ni way sama ndey nee na lii nag képp ku ko yàlla defal ba noppi amoo ak way ba tàmbali rax bi jaaw ak wam wam mooy nga dem ba yàgg sa yaram bi tàmbali waw di ras nee na ku ku ku def loolu yi nga xam ne daa waye di ba àgg foofu yi moom li ko war mooy moo moo war ni cey wuy sama ndey moo war ni ten wéy li ma dal mag day amuk way ndaxam per lii te mag ku wayul ngir way na ci nàmp way ci dëgg fii maye way nee na mag dafa war a way nee na bu wóyul perlite ko euh, perlite ko mag mooy gone gu nàmp bay bay bay fer nee na bayaan na ci weenu yaayam fu mu xiifari daal di ko daal di daal di koy song kii wóyul nag nee na perlite ko mag ndax perlite moom daa wayan ci nàmp ba fer mooy gone guy door a fer mu ne kon way ci ak dëgg moo fi maye way ku bëgg ñu way la da ngay way ci ak dëgg mooy ñu na la waa góor mag day amug way ndax am perlite mag ku wóyul ngir way na ci nàmp way ci dëgg fi maye way wéral nu cëng te may nu way tegal nu ca way setal nu wicc ci bon bon yépp jox nu tubay bi mu defee lii ba noppi nag sëñ bay dafa caa teg xam ni lii ak farlu képp taxul la jàll waaye yàlla mi xëy ni moo la dundal te moo lay xoole tam ba xam loo war a def mën na la neen man na la caa dimbali xéer la ca mu daal ni kon yow sunu borom na nu wéral cëng may nu ak wér tegal nu ca nu way itam nanu way deng itam setal nu wicc ci bon bon yi tubai. jox na tubay wéral nu cëng te may nu way tegal nu chawai way mooy nanga nu may nu way deng waaye nanga nu ci tegal itam way nu mai nga sant musal nu ci bëgg lëf loo xam ne lii du ngërëm rek ak ndigal def nu soppeb yàlla faw bu rëy nanga nu musal ci def loo xam ne nii ngërëm ci ku dul ngërëm dong rek na nga na nga ñu musal def na soppeeb yàlla boo xam ne nii bu rëy lay ne naa jëm ci yàlla bu wér saaxol bi jëm ca bu wér samay cërit jëm ca biir ak biti may ko ñu roy mi ngi ñaan suñu boroom ni léegi dama bëgg nga may ma ma jëm ci yàlla bu wér sama xole di jëm ci yàlla bu wér samay cërit jëm ci yàlla bu wér ci biir ak ci biti nga def ma ma may doon ku baax ba xëy ni ku ma seen di ma roy ku nekk foo xam ni mboolem yiwu nekk fa am te jëm fu déeful fa réew yiw farlu war na la kay nee na koo xam ni fi nga nekk lu ne mën na fa am tey dem nga ba ca yëng ba ci ak garab ay xoba nga fa ay tóor tóor a nga fa ay meññeeta nga fa yu ñor ak yu xaay nga xam ni lépp daal la ci garab garab gu ma nga fa nee na ku nekk foofa jëm foo xam ne nii boo fa demee garab nekku fa tóor tóor amu fa meññet amu fa waaye nee na la la gën kay nga watta watta ca garab ga ca doom yi ñore ak lépp rek ak xob yàgg loo fa soxla mooy addina ji addina fi lees mën a amee li ngay lekk tey li ngay sol waaye fi lees mën a amee lañ lay faye ëllëg jaamu yàlla ga moo tax mu ne ku nekk foo xam ne yiw bu nekk fa muy addina jëm foo xam ne def fore dara mooy àllaaxira moom lu fa yóbbul doo ko fa am kenn dootu fa fore dara ndax mu daal mu gën a leeral daal ne addina kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ak am àllaaxira di këru pay jëf ju yiw du fa doy ginnaaw àddina lépp fii lañ koy sàkkoo àllaaxira fay rek lañ fay def ah waaw waay bu mbay mi noppee nga dem ca koppe ba joxe sa gerte ñu jox la bon ñu jox la bon ah boo fay jotee boo delloo yóbbu bong ba kay dañ lay fay te noonu rek la mel mooy li ñuy jëfe fii ci àdduna lépp bong la àlaxira na ngay tàllal bong bi ñu fay la waaw fu mu àlaxira ku fa yóbbu bong impayé fekk ñu fay la mu ne te doonte dund nga junni at di jaamu bu du tax bu ñuy faye ngay naw pay ga luy pexe ay nee na junni at boo ko dund dundan at mu nekk ngay jaamu ko jaamu gu wér du tax bis buñ lay buñ lay lay fay ngay nga naaw payga ndax da nga daal di bëgg na delluwaat jëfaat lu ëpp loola ngir payga neex ga muy neex kuy dund loo xam ne lii ne ginnaaw boo dundoon junni yoo xam nii lépp na koo jaamu lu tax nga naw pay ga yow nag moom li ngay jun dund la jege junni at ba noppi li nga dund nga sànq ci ay at yu takku ah wala yo yalla nga yey de wala yo yalla nga yey de ñaka na lay gën du yomba lay ginaaw dundu junni at yo wër jaamu ci wër du naw ak payam yow mi nga xeyna ni la nga dundu xaju la jige lolu ba nepp la ci ëpp nga sank ko ah baña baña la yo de mo gënal ci yow motax mu dal na ñaan ni yow yalla bo far la yo sax yalla yalla na la fof yërem yërem nu te may nu doy lu wëli sulay waaw ndax fofu lay fa wuur ginnaaw sank nga ci dundu gu bari te lu nga dundu gatt mu ni yalla bo far la yo yal na la yàlla yal na la yàlla yërëm rek euh, te may nu doylu te may nu ñu bañ a lay foofa bañ a bañ a nekk di layoo daal dëkkal ci moytu te dëkkeek farlu waxtu wu jot tey daw ku sàggan aku càggan di fonk sa tey mu ni kon daal li gën mooy dëkkal ci moytu bon bon yi ak sikk yi te dëkkeek farlu mooy ci dafa yiw ak di ko wax ak di ko wax ak di ca jëm ci waxtu wu jot tey daw ko sàggan sàggan mooy nit koo xam ne daa sàggan boo ko séenee moytu ko ako càggan càggante càggante nag nga moytu ko sa bopp yow sàgg sa càgganteeg bopp na nga ko moytu waaye keneen ku sàgganit na nga ko moytu te sa tey ndax sëñ Fallou kat newoon na tey rek mooy mbir mi démb mënatoo fexe ba dabaat ko ba jant soola rek la démb jeexan ëllëg mënoo fexe ba dem dem ca ndax feek jant soogul ëllëg ñëwagul mu ne kon tey rek mooy mbir mi mooy liggéey bi tey rek mooy liggéey bi mu ne kon nga fonk sa tey xam nga ko fonk sa tey bu bu bu sa xel bu bu jant soo boo delloo sam xel delloo ci démb rek da nga daal di sant ni fonkan nga sa tey nga daal di fonk bi ci bi nga nekk tey defaat ci na nga defan démb moo tax mu ni sa tey ju ñëw def ko néew sas bay ko mbay mu rafet mu sell moo xam ni moo gën mbay mu nit masa bay dégg nga li mu wax tey ju ñëw na nga ko defu sas aw sas nag moom xam nga yorob gopp bay rek moo koy seetal moom bay ko mbay mu sel mo xamni mo gën bay mu nit masa bay ndax fi ne tay buñ la sasan tay nga bay ko ba mu set bu suba soy bay fa nga bayul won ngay bayat way fi nga bayan mom doo ko bay moy li nga defan da ngay defat lenen su fekkente ni junni nga defan demb tay bo xeyate def temer am nga am nga junni ak temer bo xeyate def junni am nga ñaari junni waaye su fekke demb defe dara tay da sam xel dem ci mu no taxé ba ci wat demb mu no fexé ba wat suba moo mu ni kon tay rek nañ fonku tay manal japp ni démb raw na la war ngaa dabaat lu la ci rëcceen war nga ko dabaatal ëllëg ñëwagul war ngaa farlu ba bu ëllëg di ñëw fekk nga am dara saxal ci tuuba mu daal la wax nag nan la ñuy bayee mu ne saxal ci tuuba xalam sag mooy di wéet ak muñ te xam ni koy fay jëf say jëf la lay xala fay kon noonu la ñuy noonu la ñuy noonu la ñuy jàppe tey waaw tey boo ko defee aw sas nee na di tuub mooy yi nga mooy nga di ko xalam di wéet yi nga ñàkk nga di ko muñ xam xel ni li nga jëf nii tay jii bu rafetee moom lañ lay fay bu ñaawee moom lañ lay fay boo wuteeg lem tey bu subaa moom ngay jot soo wutee xal bu ëllëgee moom ngay fay boo wutee kaani soo wutee suukar lu mu ci mën a doon bu subaa moom lañ lay fay nga daal di koy nga daal di kon jàpp tey rek fexe ni nga bëgg ëllëg ñu fay la ko nga fexe ba tey jooju ngay jëfe noonu noonu la ñu déggee waxi Seex ba Bakrin Jaxate ji te noonu ginnaaw yàlla danoo séddee nu féete ci Euh, danoo bëgg luñ ci mën a leeral leeral ko ngir nit ñi mën cee jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.